ont bloqué les travaux au niveau de l'Assemblée ma c'est wax ni loolu amut yoon dafa wax ni une heure avant le démarrage de la session le président du groupe a déposé les listes Si ñu noppee ci loolu déposer la composition des membres du bureau qui nga xam a par élection de liste li yoon santaane bi nous ñëwee ci suba déposer nañu déclaration de constitution de groupe intégralité wu député yi bokkoon ci Yewwi Askan Wi déposé parce que ñun dañoo lancé benn communication wax député bu bëgg a bokk ci biir groupe bi na nga tous se sont inscrits mais nañu nangul mbir groupe bi dafay liggéey ak conférence des leaders te groupe bi am na souveraineté am na maqaamay tànn kan lay jox poste wala kan la ko jox c'est la liberté du groupe mën na ko def par consensus mën na ko def par démocratie majoritaire déposé nañ nag une liste bi ñu proposé pour le bureau en partant du quota quotient bi nga xam ne bi moom la yoon wax ni képp ko xam ki da nga am ay député ci anam bi bu ñu répartition quotient bi li nga mëna am ci bureau assemblée nationale li fi am nak bañ ko déposé ba légui ñu ngi tok di xaar te à partir du moment où déposé nañu li dess moy def consolidation bind loolu lepp indi ko ci bureau assemblée nationale ci plénière bi wax ni liste bi li la ku contester nga contester

Nous len ci fi affilié apparenté wala apparenté ba ngi groupe Sangam, dañ may ay poste ñi ci ñun may pas de problème ñun yewi on a travaillé sur toutes les options et toutes les options nous conviennent li yoon may dañ ci taxaw li bëgg def ñëw ci bureau plénière bi avons ay débat

li ñu war a xeex danañ ko xeex ci anam bi ñu ko war a xeexe foofu lañ ci yem. est-ce que lu yàgg dañuy leen ci liste bi ma tontu leen mu leer mais loolu c'est la démocratie du groupe c'est le groupe qui décide de manière autonome boole wuñ leen ci pour mu leer léegi nag euh, li ci yoon maye yoon maye na ko règlement intérieur prévoir na ko nañ ci yem ci loolu leneen lu ci def ñun fañ ko war a xeexe danañ ko xeexe li ci des nag moom sénégalais ñooy ate bu fekkee ni am na ñu ne dañuy nekk candidat waxtaan fii jàppale ma fii sotal ma kii daaneel ma kii kooku sénégalais yi lii di xew ci assemblée tout de suite ak ci kanam tuuti dana ko leeral na sénégalais yi toog xaar asalaamaaleykum wa rahmatullah non non c'est bon c'est bon